sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel te di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi wa taala mu boole ñu jéggal ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot ci suñu jotaayu xam-xam yi di fat lenteendoo ak yéen nen ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu jotaay yooyu la ñuy woyal rek di bëgga sof suñu bindub tey fi nga xam ne foofu la ñu taxawoon keroog suñu bind bi weesu sëriñ bi radiallahu anhu mi ngi ñu ci doon soññ ci di sàkk lu lew waaye ak di ko waaye ñi ngi daaneeloon itam fi nga xam ne foofu lañ sëriñ bi radiyallahu anhu doon mooy tandikuloo suñu cër yi euh, di ko bàyyi xel ndax cër yooyu dafa doon loo xam ne ëllëg dafa bokk ci liy seere doomu aadama bi ci mbooleem lu doon jëf ci àdduna te loolu suñu borom bi subhanahu wa taala moom moo ko wax ci alquran mooy bis ba nga xam ne ci leen seen cër yi di seere nga xam ne bu boobaa dañuy euh, tëj làmmiñu doomu aadama bi ba du wax waaye cër ñoo koy seere ba lépp lu mu jëfoon ñu wax ko ci bayit boobu ci la sëriñ bi doon wax ne wantabihu fi anna al a'daa gadan alaykum tashhadu fi ma warada ñi ko dina tey bi di wax ne wal taamalu na ngeen jëfe bilansratil usuli ci fukki cosaan ya fa innaha naka fukki cosaan yooyee masalikul wusuli mooy soobukaayu egg sëriñ bi radiallahu anhu nee na am na fukki mbir yoo xam ne képp koo xam ne bëgg nga egg ci suñu borom bi subhanahu wa taala bëgga soobu yoonu tasawuf fukki mbir yooyu faw nga def ko muy sob soobuwaay ndax mooy li nga xam ne moo lay eggale te ku bëgg egg nag faw nga soobu kon ngir nit ki mën a egg faaw day soobu jumtukaay yi nga xam ne ci lay sooboo nag mooy fukki mbir yi nga xam ne moom lañu sëriñ bi radiyallahu anhu di leeral moo tax mu ne na ngeen jëfe fukki cosaan yooyu nga xam ne moom mooy cosaan yi nga xam ne képp ku bëgg a soobu te bëgg egg ci suñu borom subhanahu wa taala ci Euh, fukki mbir yooyu ci ngay sooboo waaye ci ngay jaar ngir mën a am ak egg ci suñu borom subhanahu wa taala fal tax taxu na ngeen dok ak taswifa ak niig niigi xasiru na ngeen gàttal al amala seeni mébét is ngir laysa yomkinu déet mooy aji jàppandi amalum jënn jëf duuna zeyni ci ludut yi la walif yi la nee na sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na ngeen ah, ngeen dok ak niig niigi maanaam niig niigi mooy lan mooy jëf yi nga xam ne moom nga war a def tey bul ko xaare suba waaye lépp loo xam ne dala war ci ak jaamu yàlla nga war koo def bul ko xaare suba ndax boo ko xaaree suba xamoo ndax suba dina la fi fekk wala diir wala xamoo ndax suba bu ñëwee nu jamono jooja di ak nu mu lay fekkee ndax dana la fekk nga wér ba mën a jooxe loole wala dana la fekk nga am ak jot ni nga ko amee woon tey ba man koo jooxe yooyu yëpp ay gàllankoor la yoo xam ne mën na gaar ci jamono ju ne ba tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne bu leen di euh, niig niigal waaye li nga xam ne mooy seen jëf yi ngeen war a jëf tey bu leen ko xaare suba ndax bu ngeen ko xaare suba day loolu moo di niig niigal te bu booba loolu mën naa jur bu ëllëgee euh, ngeen mën a bañ a jëf li nga xam ne moom ngeen waroon a jëf ci li weesu mu ne itam na ngeen di gàttal seeni mébét maanaam na ngeen di gàttal seeni mébét euh, ci àdduna euh, bu leen jël àdduna rek lépp ngeen def ko ay mébét lu nga xam ne moom nga moom nga ja jàll rek mébét leneen teg ca nee na na ngeen gàttal seeni mébét bu leen jël seen adduna yëpp ngeen def ko mébét nee na ñaar yooyu na ngeen ko moytandiku bu baax a baax a baax ndax nit euh, nit koo xam ne ci ñaar yooyu rek la teg ci ñaar yooyu rek la teg bakkanam euh, bu boobaa loolu mën na koo gàllankoor ci ñàkk egg fa nga xam ne fa la bëgg egg waaye ci euh, boroomam waaye mën na koo gàllankoor ci digganteem ak ak jaamu yàlla mën na koo gàllankoor ci lu bëree bëri loo xam ne mënoon na koo jural ak euh, egg waaye mënoon na koo jural ak soobu ci yoonu suñu borom subhanahu wa taala mu ne wal tamisu na ngeen sàkku idaamatal muraqaba euh, saxaluk fuglu suñu borom subhanahu wa taala fa hiya naka saxaluk fuglu googu day jaalibatun aji bijj la maanaam aji xëcc la doomu aadama bi ila xusnil xitaami jëmale ko ci rafetu mucc sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na ngeen saxal na ngeen saxal di fugloonte ak suñu borom bi subhanahu wa taala fugloonte ak suñu borom bi subhanahu wa taala mooy lan mooy lépp loo xam ne moom ngay jëf wala nga koy wax nga ciy bàyyi xel suñu borom bi subhanahu wa taala ndax ki nga xam ne mooy jëf wala muy wax su fekkee ne la muy wax ma nga ciy bàyyi xel suñu borom bi subhanahu wa taala wax ja dana rafet waaye su fekkee ne la muy jëf ma nga cay bàyyi xel suñu borom bi subhaanahu wa taala yitam jëf ja dana rafet waaye bu bàyyee xel ne am na ñaari malaaka yu ko suñu borom bi subhaanahu wa taala booleel ñuy bind li nga xam ne moom lay jëf itam bu boobaa dana euh, bàyyi xel malaaka yooyu te bu bàyyee xel malaaka yooyu rek lu muy wax ak lu muy jëf dana doon lu rafet moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne ngeen di Euh, sàkkoo fugloonte ak suñu borom subhanahu wa taala ndax loolu mooy li nga xam ne moo leen di andil mujj gu rafet loolu mën na leen a yóbbee ci mujj gu rafet ndax ki nga xam ne mooy bàyyi xel suñu borom subhanahu wa taala buy jëf la muy jëf dana ca bàyyi xel suñu borom te bu ko ca bàyyee xel jëf ja dana rafet waaye itam bu fekkee ne day wax itam la muy wax bu ci bàyyee xel suñu borom subhanahu wa taala euh, wax ja dana rafet kon moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne na ngeen di fugloonte ak suñu borom ndax su fekkee ne yaa ngi te ak moom di bàyyi xel suñu borom di ko di topp say jëf li nga ci jëf nga koy nga ci bàyyi xel suñu borom loolu dana la dimbali ba ah, suñu borom man na laa defal mujj gu rafet ndax jamono joo xam ne ah, sa gros suñu borom subhanahu wa taala ma nga koy jël jamono yooyu dana fekk ngay fugloonte ak sa borom te bu fekkee ngay fugloonte ak sa borom subhanahu la taala loola mën na laa yóbbe ci mujj bu rafet mu ne waman yadaa ku bàyyi kulla fudulin jëpp caaxaan maanaam lépp loo xam ne amul njariñ ci wax wala ci jëf lam yaxus joj làqut jamaan ak dogu ala rabbil bariyati ci borom bindee fi yafus kon mu tuufu maanaam kon mu texe kon mu tanaw sëriñ bi radiyallahu anhu nee na képp koo xam ne day bàyyi nga jëpp caaxaan lépp loo xam ne caaxaan la moo xam caaxaan bi jëm ci wax moo xam caaxaan bi jëm ci jëf képp koo xam ne yooyu day bàyyi ko euh, te jëmmi suñu borom subhanahu wa taala rek tax nee na kooku day euh, dana am ngañaay waaye dana tuufu ndax suñu borom subhanahu wa taala dana ko fay kon ay caaxaan Euh, lépp loo xam ne mooy nuru caaxaan ci wax wala ci jëf jullit bi daf ko war a moytu doomu aadama bi daf ko war a moytu waaye bu koy moytu ne jëmmi suñu borom subhanahu wa taala rek tax képp koo xam ne nag lépp luy caaxaan moytu nga ko bàyyi nga ko te jëmmi yàlla rek tax kooku suñu borom subhanahu wa taala dana la defal ak puuf waaye suñu borom subhanahu wa taala dana la fay ca loolee nga xam ne moom nga def mu ne waxarriru na waxarriru na ngeen sellal niyatan seen yéene min xabli fi'lin ca njëkk jëf wal taarifu te na ngeen xam rashaduhu njubam ga moom jëf wa xayyahu ak réeram ga sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na ngeen di sellal seen yéene bala ngeen a jëf maanaam bala ngeen a jëf dara na ngeen sellal yéene ji nga xam ne moom ngeen di eh, jiital bala ngeen a jëf waaye bu ngeen sellalee yéene je ba pare itam na ngeen xam la ngeen di jëf nangeen ngeen xam la ca di jub ngir ngeen mën koo jëf waaye ngeen xam ca la di la ca ngir ngeen mën koo moytandiku kon euh, ginnaaw boo sellalee yéene ba pare euh, ndax suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne waabudullaha muxlisina lahu diin na ngeen di jaam yàlla te di ko sellal yàlla mi nga xam ne moom moom moom diine te wàcce ko ci xeetu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa war ko ci jaamu euh, nee na suñu borom bi subhanahu wa taala moomu euh, bu ngeen koy jaamu na ngeen koy selal waaye bu ngeen sellalee yéene jooju ba pare la nga xam ne moo ca tege di jëf na ngeen fexe xam la ca di jub waaye xam la nga xam ne moo ca di ak loolu nag li la koy mën a may mooy jëf ju ne nga xam la nga xam ne moom la ca sariya àtte waaye nga xam ne moo ca baax ak la nga xam ne moo ca bon waaye jëf ju nga xam la nga xam ne moo ca dagan ak la nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala euh, araamal mu ne wajtani bu na ngeen teet alxawaatira xelaat ya ardiyata yey aji ñaaw walazimu te ngeen taqoo alxawaatira xelaat ya almardiya yadi yañu gërëm maanaam yadi yadi aji rafet sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na ngeen taxoo xelaat yi nga xam ne xelaat yu am njariñ la euh, te euh, na ngeen ngeen taxoo xelaat yi nga xam ne xelaat yu am njariñ la xelaat yu leen mën a jariñ la xelaat yu suñu borom subhanahu wa taala gërëm la te ngeen teet bépp xelaat boo xam ne mënu leen a jural njariñ waaye euh, ci da leen di ñod rek di leen jëme ci am mbon waaye da leen di ñod di ci loo xam ne ci topp seen bakkan la jëm sëriñ bi radiyallahu anhu ne xelaat yu mel noonu ngeen ko teet waaye na ngeen takkoo ak bépp xalaat boo xam ne daf leen di euh, tax ngeen am ngërëmal suñu borom subhanahu wa taala waaye bépp xalaat boo xam ne daf leen di jural aw yiw kon bépp xalaat boo xam ne daf lay jural ñaawteef maanaam daf lay xëcc jëmle ci ñaawteef xelaat boobu sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ñu koy moytandikuloo waaye euh, bépp xalaat boo xam ne euh, day tax suñu borom subhanahu wa taala la nga mën cee jële ngërëm xelaat yooyu sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ñu koy dénk ngir ñu taqoo xalaat yu mel noonu xalaat yu mel noonu nag bokk na ci di xalaat ci li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bind ci ay kéemtaan nga ci xalaat loolu boo koy xalaat dana gën a yokk sa ngëm yàlla waaye dana gën a dëgëral sa yàlla dana gën a tax nga gën a jox dayo bi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa am nga gën ko koo jox waaye dana tax nga gën a bàyyi xel kàttana suñu borom bi ak màggu suñu borom bi subhanahu wa taala ndax sëriñ bi radiyallahu anhu boo demee ci masaalik ma nga fay wax ci bunt ba nga xam ne ci lay wax ci xalaat mu ne amma tafakkuru fa aydan xat ata min anfasil asiyai xaysu usbita nee na ni ngeen xam ne xelaat day ci lu baax mooy euh, xelaat ci euh, li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu bind di xelaat ci yow ci sa wàll bopp sa jëmmi bopp bi bind gi nga xam ne noonu la la suñ borom subhanahu wa taala binde di xelaat ci kéemtaan yi mel noonu ak kéemtaan yi nga xam ne mooy kéemtaan suñu borom subhanahu wa taala sëriñ bi radiyallahu anhu ne loolu bokk na ci gën gaa gànjaru mbir yi euh, saa boo xamee ne aji euh, xalaat bi saxal na ko maanaam saxal xalaat ci li nga xam ne mooy kéemtaani suñu borom subhanahu wa taala sëriñ bi radiyallahu anhu nee na loolu bokk na ci li gën a riche ci jaam bi def waaye bokk na ci li gën riche ci euh, li doomu aadama bi def nga xam ne wéet benn waxtu xalaat ko rek mën naa gën ay jaamu yàlla yu bare bare bari yoo xam ne doomu aadama bi saxal na ko di ko def kon nit ki euh, war nay toog léeg-léeg mu wéet ak boppam di xelaat ci li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bind waaye di xelaat ci li nga xam ne moom kéemtaan yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala def na ko te loolu euh, nit ki li mu ci mën a euh, def bu xaaj bu jeex bari na lool ci loo xam ne suñu borom subhanahu wa bind na ko ñu man cee xalaat gën a mën a euh, xam kattanu suñu borom bi subhanahu wa taala waaye gën a bàyyi xel suñu borom bi subhanahu wa kon xalaat yi mel noonu moom la ñu sëriñ bi radiyallahu anhu di di di di bàyyiloo xel waaye mi ngi ñuy euh, teetloo xelaat bépp xelaat boo xam ne euh, xelaat bu ñaaw la te loolu euh, boo demee ci bi muy wax ci koor sax ci masal ba tey ma nga fay wax naan wa kullu fikratin radiyatin kama am saktaan aklin wa shurbin olina ni nga xam ne noonu nga bàyyee lekk ak naan ci sa koor ci sa weeru koor noonu itam lañuy ñuy ci yow nga bàyyi bépp xelaat boo xam ne xelaat bu ñaaw la te amul njariñ waaye xalaat la boo xam ne mënu laa jural euh, benn euh, njariñ euh, kon nit ki nay fexey buy xalaat muy orienté ay xalaatam ci li nga xam ne mën na koo jariñ waaye nay orienté ay xalaatam ci li nga xam ne mën naa tax ak ngëm yàllaam gën a dëgër waaye lii tax mu gën a bàyyi xel kattanuk suñu borom bi subhanahu wa taala mu ne taksiiru xultatin barik jaxasoo bilanti faaxan ci dudut euh, jariñ euh, daaxin aji yóbboo la ila zunubi jëme ci ay bàkkaar wal xijaabi ak kiiraay sëriñ bi radiyallahu anhu nee na baril ak jaxasoo day jaxasoo goo xam ne amul njariñ maanaam jaxasoo goo xam ne du la jural benn njariñ du la yokk ci sa diine du la yokk ci sa ak ragal yàlla du la yokk ci euh, sa bëgg lu baax jaxasoo gu mel noonu sëriñ bi radiyallahu anhu nee na jaxasolo goo xam ne day yóbboo nit ki ay bàkkaar waaye day yiir nit ki ci digganteem ak boroomam bi subhaanahu wa taala waaye day dox nit ci diggante nit ki ak ngir mu mën a egg ci suñu borom bi subhaanahu wa taala moo tax sëriñ bi baril ak jaxasoo ci jaxasoo goo xam ne amul benn njariñ amalula benn njariñ euh, lool day gënut ndax la mu yóbbee mooy ay bàkkaar la lay yóbbee waaye la lay yóbbe mooy day dox sa diggante ak sa borom bi subhanahu wa taala waaye day dox sa diggante ak eh, jaamu yàlla eh, ndax jaxasoo yi bëree bëri ñu seetlu léegi di ko gis daanaka du doon jaxasoo yoo xam ne mën nañ caa jële njariñ waaye jaxasoo ngir eh, poñetim àdduna lay doon waaye jaxasoo ngir am po rek lay doon te jaxasoo yi mel noonu moom la ñu sëriñ bi radiyallahu anhu di moytandikuloo ndax loolu la muy jural nit ki mooy ay bàkkaar lay jural nit ki waaye la muy jural nit ki mooy kiiraay digganteem ak uh, boroomam bi subhaanahu wa taala ndax gis nañ jataay yu bëree bëri bu ñu fa uh, toogee di jaxasoo uh, xëy na lañu fay nekk mooy di fa tudd ay nit yoo xam ne la leen di tudde leen neex bu ko déggan wala yu demee noonu jaxasoo yu mel noonu moom la ñu sëriñ bi radiyallahu anhu di tere waaye jaxasoo yoo xam ne bu fa teewoon dañ fay nekk di tudd yàlla Euh, ba ba ñu fay jógee bu boobaa jaxasoo yu mel noonu nag moom euh, sëriñ bi radiyallahu anhu mi ñu ci soññ bu baax a baax ngir ñu euh, nekk ca waaye ngir ñu ñu koy ñu ñu bokk ci ña nga xam ne ñoo koy jëmmal ndax sëriñ bi radiyallahu anhu na wax ne bu ngeen rombee tooli dër yi dee leen dee leen leen ci dee Euh, ñu ne ko tooli dër yi mooy yan mu ne mooy tool fi nga xam ne foofu barab yi nga xam ne fa la ñuy tudde yàlla barab yi nga xam ne fa la ñuy tudde yàlla loolu mooy tooli dër yi nga xam ne euh, bu ñu ci rombee baax nañu ki xeewlu kon jaxasoo yu mel noonu mën nañ koy bari waaye nag gépp jaxasoo goo xam ne mënta jural nit ci lu dut ay bàkkaar jaxasoo gu mel noonu moom mat naa mooy tandiku bu baax a baax a baax sëriñ bi ne wax xaalifu na ngeen woote nu fuusa comme seen bakkan yi fii maa ca la nga xam ne daat woote nañ ko loxoo ñeel leen maatihaamiha ànd ak di leen tuumaal fii ma daat ca la nga xam ne moom lañ di woote ci ak njub sëriñ bi radiyallahu ngeen na ngeen woote ak seen bakkan yi maanaam bakkan bakkanub doomu aadama euh, dafa bëgg am nooflaay ndax mooy de alquran di wax ne Ah, inna nafsa la amaratum bi suu bakkanub doomu aadama day digal doomu aadama bi ci aw ñaawteef rek lay xëcc doomu aadama bi di ko yóbbu waaye ci bànneex lay xëcc doomu aadama bi di ko yóbbu di ko ci yóbbu bakkan bu mel noonu nga xam ne na kii ay ñaawteef ak ci bànneex lay xëcc boroom di ko fa yóbbu ah, bakkan bu mel noonu sëriñ bi radiyallahu anhu ne na ngeen wuute ak bakkan bu mel noonu waaye bu leen ko ko jox yitte bu leen ko bu leen ko bu leen ko jox seen bopp waaye na ngeen wuute ak moom ci ay bëgg-bëggam na ngeen wuute ak moom ca la nga xam ne ca la leen di woo ca la leen di sàkku di leen ci yóbbu bakkan bu mel noonu na ngeen wuute ak moom waaye bépp bakkan boo xam ne sax mi ngi leen di la sellalal ak topp yàlla di leen won ne moom mi dafa nangoo topp yàlla na ngeen ko tuumaal ci la nga xam ne moom la leen di woo maanaam bu leen ko dëggal ndax bu ngeen ko dëggalee ak waru mën na caa juddoo maanaam nit nga xam ne bakkana mu ngi koy won ni man ñi dama mën a jaamu yàlla damay euh, top suñu borom subhanahu wa taala fu ma toll bakkan bu moom noo mel noonu itam sëriñ bi radiyallahu anhu ne ni ngeen koy tuumaal ndax li tax ngeen koy tuumaal mooy bu continuer di def noonu mën naa dem ba yóbbe leen ak rëy wala mu yóbbe leen euh, loo xam ne mujj ga du rafet moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu moytandikuloo bu baax itam bakkan bakkan bi nga xam ne dalay xëcc jëmale ci ak mbon dalay xëcc jëmale ci ñaawteef bakkan boobu nanga ko moytandiku bu baax a baax waaye bakkan bi nga xam ne itam euh, dafay dafay tiitaroo ne moom day jaamu yàlla wala dafay màgg-màgglu wala yu demee noonu bakkan bu mel noonu itam sëriñ bi radiyallahu anhu ne ni ngeen ko tuumaal euh, ndax bu ngeen ko tuumaalee mooy tax la leen di wax bu ngeen ca dégg dara su ko defee ngeen mën a woote ak moom ca la nga xam ne moom la leen diwoo ndax bakkan bu mel noonu soo ko toppee euh, ca la xam ne moom la lay woo mën na laa yóbbu ci ak màgg-màgglu mën na laa yóbbu ci euh, naw sa jëf te yooyu yëpp itam euh, ay mbir la yoo xam ne la muy juralaat doomu aadama bi du doon lu rafet moo tax sëriñ la radiyallahu anhu ne ngeen wuute ak seen bakkan yi ca la nga xam ne ca lañ leen di woo waaye na ngeen leen tuumaal ci lépp loo xam ne euh, moom lañ leen di sellal di leen ko won kon ñi ngi tuub bu baax te jéggulu di wàcc foofu kaddu yi di wax in uridu illa al islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ bi dana tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey